jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu gën a am mbégte gën a am kontaante di félicité bu baax les lions di Sénégal ci ndam lu réy li nga xamante ni Sénégal am na ko démb wanewaat nañ seen bopp ci làmb ci ci ci ci match de football waaye wanewaat nañ seen bopp ci li nga xamante ni ñoom la yi di xaar ci ñoom muy coupe bi ñu ngi ñaan yàlla suñu borom li nga xamante ni moo mën. yal nañ ci yàlla suturaal bu coupe bi ñu indi ko Sénégal parce que yaakaar naa ni soxla nañu ko xale bi ñu toogal nag kenn du ko présenté ci làmb muy caatu yaraax mu nekk xale boo xamante ne ndaanaan la ci làmb waaye borom cinq secondes six secondes sept secondes mu jël xale bi nga xamante ni mooy Bulldozer ñu war a fas yéenee laale ñoom ñaar mu nekk grand combat Fallou njaay moo ko organisé Ndiaye production tey ñu fekk ko ci salle de musculation bi muy entraîné ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu xam nan lay waajee bis ba ak nan la ci fas yéene demee mbër maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. waaw salaamaaleykum <coughs> ginnaaw bañ sant yàlla ñu ngi julli ci bi di sant suñuy wéyjur kay di euh, di wax ne soyez les bienvenus mm. yéen waa wasaare lamb mm. mag yéen depuis ba Gambie mm. ba Sénégal kon gàcce ngalaama wasaare ak Baye Jili di gërëm aussi tamit euh, fi ngeen ñu fekk nii suñu coach yi coach maam Cheikh ñu ngi koy gërëm bu baax ak soo gars yi ñoom Thiebo. ak ñoom coach Weuz ak gars yi ngeen fekk ci salle yëpp ak suñu coach yi ah. di leen wax ne daal leen jàmm parce que fii loolu fi nekk ah bu ñu ñëwee ñun sportif yi ñoo fi nekk ànd ak suñu coach yi di tërëm waaw. léegi nga jëm ci bis bu mag. si diggante. ak xale bi nga xamante ne ah baal leen ma de sa diggante ak xale bi nga xamante ne mooy Bulldozer combat bi wàccaay komba bi ñu gis nga jóge ci Zal Bambey jël Bulldozer lan moo waral choix boobu. Zal Bawol. Zal Bawol. ok jël Bulldozer. waaw xam nga làmb moom kenn xamul. Hmm. ndax tey su ma jógee ci Bulldozer tax mën naa bëre mbër moo xamee ne mën na bett ñëpp tamit. Hmm. ndax Bulldozer mbër la ndaanaan la dafay def dara moo tax euh, ma suñu contrat bi bëri moom moo war a bëri moom. Mm-hmm. ndax yaakaar naa tey su ma nekkee ndaw. Mm-hmm. di prouver pour ma dem à haut mm-hmm. kon tey euh, su ma dee ku su ma naataangoo ci làmb. ko mën a pare dem stade wane bi dañ la ko proposé wala yow yaa ko bëggoon jël. man moom sama choix ñëpp xamoon nañ ko ci làmb fu ma taxawoon xaaj ñu ne Thiatou Yarakh mii lu mu bëgg. Hmm. waaw ndax euh, dañ ma ko proposé nag proposé nañ ma ko ba sonn wax dëgg fa yàlla. Hmm. bañoon naa nag tamit ba sonn. bañ boobu nag laa boo boo demee boo demee Fallou Ndiaye mi ngi ko doon leeral. confirmé waaw waaw effectivement. Hmm. kon tey Bulldozer man maa ko may chance pour ñu bëree ndax bëgg na combat bi fu nekk. dem na sax ba moom bu demee ci li may wax laay waxaat rek bu demee pour ñu invité ko plateau danaan Thiatou Yarakh bu ñëwul du ma ñëw parce que boobu dafa bëgg a bëri man. kon na nangu loolu yàlla mooy dogal te ci kàttanu suñu borom ni def ba ñëwee mën a jël sama avance le 27 na dëggal boppam mu taxaw wane ko. no dëggal boppam moom waxatuñ ko ndax Bulldozer dina ko def ndax moom moo la xiif Bulldozer ci boppam moo la xiif moom. waaw xam nga ay ay góor moom bu naree sa bu xam ne di saagante te benn bés tox seen diggante ñu koy xaar di ñaan yàlla suñu borom bañ ñoo teg benn gàllankoor ñëpp am wér gi yaram bañ fekkee ko muy le moom su ma xiifee benn xiif naa ko cent. yow mi waaw ndax kàll ndax maay ngi dégg li muy wax lépp day gën a métti ci moom rek. non ñu ñu jox la bulldozer nga bañ a jël bulldozer bulldozer di la wër di la rëbb di la rëbb ba ne la kirtim nga ne yaa ko gën a xiif. non parce que xam la moo tax su ma nee la xiif naa ko parce que jeex a sa taxaw. instant yi moom rek laay gis ndax sa avance contrat am laa signé moom rek mooy sama kanam de actuellement nii foog ma terrassé ko. ndax mënumaa jël làmb dem tëdd nelaw naan non non dinaa ko daan da ngay dem liggéey ànd ak say mbokk mm-hmm. te dinaan xiif naa ko parce que li may entraîné su ma demee ba yëg sama bopp damay s'entraîné moom moo tax mm-hmm. foofu laay waxee ñaata combat seetaan actuellement. yaa ngi ko suivre ma la waxee dëgg rek. Mm. yaakaar naa ñaari combat am laa seetaan mooy ñaari dernier combat mi. parce que man li may faral di wax toujours rek man du ma topp mbër à 100 pour cent. Brise de gin laa seetaan ak bu alliance. ak moom alliance waaw parce que boobu dese naa ko xam trop ma ne xaaral ma concentré wu ci moom xam bulldozer quoi ràññee a xam a a kon loolu faay la ñëppay def faay ci làmb amul mbër bu def faay ci làmb. Hmm. loo mën a mën a bëre saa saa di nga tànte loo xam ne faay na ci am. Hmm. waa combat bi ñi nga xamante ne dañuy ànd ak yow rawatina waa Yaraax Dalifor tund boobu yëpp di boo jugee dañuy déplacé wu ànd ak yow combat bi bu desee deux minutes wala trois minutes wala cinq minutes bu ko combat bi defee est-ce que say xel ñaar ci yow. lan moo tax ñu am xel ñaar ci man. ah seconde nga leen tàmmal. déedéet de. man li ma bëri ay seconde yëpp rek ci làmb de. Hmm. daf maa dab ci làmb. kon diggéewoo ak ñoom benn seconde. non non adversaire yooyu dama kontaan ci ñoom parce que dañoo dëggal seen bopp ñu bëre maak moom maak ñoom kon tey ñoom ni ñu seen bopp noonu kon moom aussi tamit na dëggalee boobu noonu. non Bulldozer moom day dëggal boppam. waaw kon day gën a neex rek daal. doomu Malika bi. man daal champion mooy wax ak yow Bulldozer xam nga ay xale bi ñu bëri dara daaxul amateur yi ñëw uy si leen ñoom ñu wane seen bopp mais xam nga tegtal bu ñu ko toppee à 100 pour cent tamit day yàq làmb ndax boo fekkee tam dañ naan la génnal làmb ji 10 minutes nga doog a bëri caatu yaraax yaa ngi nax sa bopp te nga ñëw dëggal sa bopp ñu bëri loolu jeexal làmb bëre bu amul mais loolu bu amul làmb du am il faut ñu xeex bëre di ngeen xeex yéen ñaar il faut ñu xeex bëre yow bëgg xeex bu dawul non bàyyil bu dawul Buldozer du la daw waaye bàyyi liggéey def <laughs> caat Buldozer du daw de du la daw de xiif na la de waaw xam nga la répétition est pédagogique parce que yaakaar naa sensibiliser yi te man wax si man man man damay commencé soof askan bi boobu <laughs> ndax ma wax. caat bu ko dégg bi désert ci bopp yi ko xamee wax bëriwul. Ah. man samay parce que ay mag ak ñu yor. Hmm. saa su nekk rek duñ bëgg a dépasser l'ordre. dëgg la dañu bëgg a maîtriser suñu parole. Hmm. résumer li ñu résumer mu jeex. Hmm. ndax euh, adversaire adversaire la. pour le jour. après. ñu ngi xool leen lu ñu nekk suñu kanam. Hmm. du tax aussi tamit ma wax ci loo xamee ne bu ëllëgee dama koy rëccu. Hmm. mais tam ci cadre lamb lañ nekk. Hmm. avance la lekk. il faut mu wax ko lu muy dégg. bu jàppee ne day yomb muy nax boppam. yéen ñaar képp doole. xam nga maa ngi koy dégg à tout moment ma naan maa ngi ci li ma war a nekk maa ngi ànd ak samay mbokk fi ñëpp mbokk mais xam nga lamb. wallahi ndaw lu ci yaakaarul lu dul bëri ak sa entraînement yaa ngi nax sa bokk na ci de. maa la ko gën a gëm fuuf. mais dama nga taxaw ci géew gi ne Mara bi kay daan la mbër bi. non mënu ko parce que bu ko mag màggetu mbër yëpp. ñun gis nañ lu nekk ci làmb. Hmm. leer na tey sa jom lu mu la mayul leen mënu la ko may. déedéet. ndaw bu ci entraîné wul yaakaar na leneen comme li may waxaat toujours rek yaa ngi nax man nag maa ngi ànd ak say mbokk di def li ma war a def. Hmm. li làmb laa jib dama tey laa koy gën a def. làmb ji daf ma jaral lu mu laaj dama koy def parce que maa soxla ndam. yooyu ñaar kopp doole. billaahi maa ko doole fuuf. ku dàq xeex concurrence sax bokkul baa jëlee. ku dàq xeex. chaque jour li may wax bu bëggee humilier boobu na xeex. ku dàq bari xam nga tey maanaam xoolal ay combat nga xool samay combat. xam nga gars dañ naan ay secondes mais man bari naa fi ay minutes. maak Aadou bu Papa Kane dañoo bëri lu neex. maak Deux Ziga dañoo bëri lu neex. maak Bourchine dañu bëri lu neex. maak Remarque bu Guédiawaye dañu bari lu neex. kon tey bu gisee sama deux derniers combats rek taxaw naan caatu yaraax gars yi ñoo ma tuddee le roi des secondes la mooy jël parce que tamit su ma sañoon làmb ji ma ëpp sax mu daanoo sa ndam li ma gënal. Hmm. waaw mais lu mu laaj tamit parce que moom bu fekkee dafa dëggal boppam. billaahi mooy gënal gaaw ci làmb yi nga xam ne moom lañ mës a tourné lépp bu dëggalee boppam nag. yaa ëpp doole. yaa dàq xeex maa ëpp doole maa dàq bëre maa dàq xeex. yaa ëpp mystique. mënul daan. bu daan. ku no mbooloo moom ci Caatu Yaraax la fekk baax yow xam nga ne rek mafia capot Caatu Yaraax bi ñu génnee moom moom du gis dara parce que moom fi mu dëkk fi mu dëkk man maa ko bële. Hmm. waaw euh, ñu ñëw ci combat bi ñu fekk la tey salle de musculation nga ànd ak say coach di liggéey combat bi ñaata séance nga ciy liggéey par jour ak heure bi ngay ñëw salle ban heure ngay ñëw ban heure nga fiy génn boo génnee saal lan ngay def pour ñu xam journée bi. waaw man dinaa dem géej dinaa ñëw dinaa dem géej cinq heures du matin. kon trois séances ngay def par waaw saa saa nag bu laajee benn séance sax benn séance laay def. Mm-hmm. ndax euh, chaque jour rek da xool li kon tam ne sa yaram koy def. sans mm-hmm. de ci maanaam régime bi nga xam ne moom la ma coach Mame Cheikh di jox. Mm-hmm. mu ne ma caat tey li ngay def loolu laay def du mu forcer. parce que yaram de ko yan lu mu attan. boo nekkee ndaw na carrière nekk sa làmb sa kanam. nga war a waat bëriwaat vingt ans ci kanam. naan maa ngi def cinq séances ak dix séances nañ xool. bu dee dëgg la laa wax de. Hmm. xool yaram attanu ko ñu ñëpp sportif lañ moom ñu ko ma ci làmb tey bu taxawee nan ay maa ngi def dix ak vingt séances ñun xam nañ li ci entraînement bu baax li yaram attan xam nañ ko. mais boo ko gisee xam ne entraîné na. mais boo ko maa ko entraînement. mais entraîné na moom. non entraîné wul de. moom ban pied lay jiital. gauche wala droite. xaw ma de. xamoo ko wax dëgg fa yàlla xooluma sax pied mi jiital. ban tànk nga ko nar a tegal. man deux temps la léppay liggéey ci man. bàyyi ma benn. pied bu mu la tegal nga teg beneen. waaw bi mu teg baaxul. tànk bu mu jël kay ma génne ko stade bi. Hmm. coach mbër bu jëm ci combat actuellement joxal ma coach micro bi mbër bu jëm ci komba actuellement ci moment bi lan la war a entraîner ak nan la war a mën a def ba am doole bi mu bëgg te yaramam du déborder. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp hmm. di ziar ñëpp hmm. waaw di bëgg waa dirim fitness mooy salle bi ñu nekk hmm. waaw di bëgg ñi fi nekk ñëpp waaw liggéey moom entraînement yoon la rek waaw yoon la donc da ngay entraîner récupérer xool li ngay lekk après jeex na quoi loolu la waaw chaque jour bu ñëwee ak li mu war a liggéey dañ koy tegal programme moom buy jógee këram di ñëw si salle bi xam na tey li mu war a liggéey donc bu ñëwee dañ ciy nekk concentré aussi mun nañ ci am sax deux heures de temps. Hmm. waaw fajar gi day dem géej dañuy déggante bu waree dem écurie ba contact yi dañuy déggante dañuy def lépp donc instant bi daal moom mi ngi si nice quoi. Hmm. waaw yaram bi actuellement buy ñëw. muscle bu mu liggéey travail tey bu subaa day changé wala même rythme boobu lay entraîné. non chaque jour ak muscle yi muy liggéey moom actuellement nii day liggéey deux muscles par jour. Hmm. waaw deux muscles liggéey par jour. Hmm. bu fekkee amul combat amul dara nag dañuy liggéey benn muscle rek la ñuy liggéey par jour. Hmm. bu ñu paree dañ koy booleeg biceps wala triceps. biceps wala triceps muscle bu ndaw la donc dañ ko si boole rek quoi. waaw mais day liggéey benn muscule par jour. mais actuellement nii moom bu ñëwee saal day def ñaari muscule la liggéey. moo tax muscule mbër buy entraîné muscule dina ñëw ci lex parce que temps yi booy ni ñuy amee lex garaaw na de. waaw booy de xam nga rek léeg-léeg tamit waaw doo comprendre quoi. parce que <laughs> lex yi daf ba yéem. lex yi daf mun na doon récupération bi mun na doon si lekk bi mun na doon tam ay complement yu leen seen coach yi di jox ak yooyu. Hmm. waaw mun na doon si lépp quoi. parce que li ñuy jël su bokkul ci ñoom de. non si parce que mbëri man man bokk. Hmm. man duma mbër yi may entraîné yëpp dañuy naan protéine dañuy naan créatine. Hmm. waaw te loolu yoonu sportif la quoi. képp fii hmm. sportif war nga mën a naan protéine war nga mën a naan créatine. loolu ban moo ci yokk lex yi. non ñaar yooyu yëpp boo ko naanee normalement entraîné amul dara lu si yokk say lex. Hmm. waaw booy sa yaram buy jug day ànd jug nice amul fii di déborder ay lex yooyu du ci am. mbër bu bugg a def carrière. ci ban lancé la war a mën a nekk ak ban méthode entraînement lay entraîné ba def carrière ci làmb. waaw da ngay dem uti coach professionnel. Mm-hmm. nekk ak moom am ak moom coloré surtout. Mm-hmm. parce que bëri na ñoo xamante nii dañuy commencé benn coach. dem am yoon bu baax. commencé changé carrément ba ñëpp commencé leen xam ak coach boobu. Hmm. ñu jékki-jékki commencé changé bëgg dem fii bëgg mos fii bëgg dugg fii ku nekk bëgg indi xelam. Hmm. donc xel yu bëri yi après moo lay dugal ci ay yoo xamante ne après da ngay dem ba doo comprendre. Hmm. mais ki nga commencé moom. am ci moom yoon ba nga commencé nit ñi commencé la xam. kooku da nga ko war a jàpp bu baax. am na solo maa lay jaajëfal bu baax. mbër dégg na li nga xamante ni moom la coach bi wax. Mhm. depuis ñaata at wala ci yan combat nga commencé ànd moom di entraîner. waaw <clears throat> mooy coach bi ni la wax rek ndax yaakaar naa alal téewul doomu adama kóllëre mooy téye doomu aadama. Hmm. ndax coach yi moom boo am ak ñoom kóllëre yàlla moom. Hmm. moom mu ngi nii. billaahi fay ma ko ñaar dërëm de. Hmm. mais moom mooy woo entraînement moom naa ma foo nekk di ma soññ ma ñëw mu ray temps hmm. te dafa de entraîné hmm. de di bàyyi léppam nekk ci man concentré wu ba ma jeexal takk ba ñibbi hmm. mu doog a nekk ci lu mu nekk mais macha allah ndax euh, combat yi paas yëpp moom moo pareel combat yi ma ñëw yàlla may ma ndam. waaw. am na solo seen combat bi dañu gis affiche yoo xamante ni dafa jur ay polémique yu bari ñu gis Ada Fass Jokkel te yow yaay bëre grand combat bi. Euh, sa diggante ak Bulldozer bi nga gisee loolu maa jurul polémique comme ni nga ko juree ci internet bi jur ko ci say bokk non non ñi comprendre loolu rek ñoo xamul nu demee quoi. Hmm. loolu du ma ci jur polémique ndax tey loolu su ma ci débat waaye damaa yëpp promoteur bi. Hmm. man mënu ma dem CNG signé sama contrat. Hmm. di dégg ay polémique ak ay wax WhatsApp ba pare ma ci considéré parce que man su ma gisee ay affiche ak yooyu parce que loolu noonu. mooy jaay Hmm. dañ koy nangul promoteur bi. Hmm. ndax euh, tey bu la neexee nga ne Ada Fass Jokal parce que tamit boo ko waxee aussi tamit nga ne Thiatou Yoff Buldozer il fallait polémique am ci lamb ji. parce que hmm. ay ndaanaan ñooy bëre ci lamb ji. waaw man ba ma xamee ne man man ba ma signé contrat grand combat la loolu loolu yàgg na mais aussi tamit. ba mbiree yi génnee loo xam nga ñeen ñi di ootee ñenn ñooy bëri grand combat kuy bëri spécial loolu moom man mënu ma cee nekk di def ay polémique ndax xam naa li xew. promoteur bi. jokkoo nañ. Hmm. manager bi nañ avant Ada a ak Kali taxaw. Hmm. dem nañ CNG remplir nañ suñu contrat CNG. ñun la micro ñun la reconnaître ci grand combat. Hmm. kon loolu aussi tamit jarul ñu ci indi yenn polémique yi quoi. mais aussi tamit nekkul ñun rek ñoo mérité grand combat bi. ndax ay champion ñu ci bëre ndax ñu mel ni ñaari champion yooyu. wax dëgg fa yàlla même ñooñu bu nekkoon mbëru grand combat bi tamit duñu métti. ndax def nañ dara ci làmb dëgg la waaw ak yeneen mbër yi nga xamante ne effectivement daanaan la suñu grand la hmm. champion la ak yeneen mbër yi nga xam ne ñooy boo ñooy bëri ci bis bi parce que hmm, hmm. nañ ne quatre quatre combats la jël wala quatre mbër yi nga xamante ni ay ndaanaan lañ ci làmb mu boole leen ci benn benn combat xam naa ne bu Siteu sax ak loraa njaago rek askan bi ñu bari bari ñu ngi koy xaar ma lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité ñëw fekk la ci saal bi ak entraînement yeeg coono yi mais jël naa lépp maa ngi yow ndax mais am na lu des nag. <laughs> baal sama yaay ji ngay sonal di faral tànta ñun yaay lañu àndal de. boobu nga àndal ñun yaay lañu àndal. <laughs> te nag xamal naa la benn affaire. balaa nga gën saa du yomb de booy boo bëri bàyyi de. ko ci. chaque jour ñu ngi lay suivre toog toog ngay nekk di sonal yaay. Euh. mais tey du yomb balaa ngaa génn ci bi. léegi kon bàyyi naa ko loolu amul benn problème non non mënul nekk. non bàyyi naa ko foog nga ñam foog jàpp yaay di ko sonal rek bëgg a teg tànta ci kaw. <laughs> Euh. ñun loolu duñ ko nangu de yaay lañu àndal yaay fi nekkoon démb. tànta moom laa tànta tànta day xaar yaay fi ne. <laughs> lay jaajëfal bu baax kontaan nañ bu baax ci gars vraiment di gërëm aussi tamit autorité yëpp. Hmm. di wax ni waaye raax nañu waajal bu baax a baax waa Kër Massar Alaaji Paate aussi nañu waajal bu baax a baax yëmbal Malika maa moomee foofu su may mbokk fi nekk su may am di jàmm su may lépp maa ngi leen di ñaanal jàmm ci yéen mm. ñaari ndaw war a daje nañ ci wax jàmm ak salaam ndax bés la benn la day jeex non mm. à la violence toujours comme li may wootee mm-hmm. fans yi bu leen yàq bu dee seize ci kase caatu yaraax lay compté mm. bu dee seize ci kase Bulldozer lay compté mm-hmm. kon nga la waaye xaw leen yërëm mbëri ndax làmb dafa métti luñ am lu nekk rek mi ngi ci wàccaay ci wàccaayu làmb te làmb maam du matee bu ñu joxoon un milliard mën nga ko def ci benn bés te boo paree li nga yaakaar lenn kese la hmm. mooy maanaam ndàmpaay bi nga xam ne moom nga desee hmm. pour ànd ci bigaw ci say mbokk hmm. kon tey bu ñu yàqee rek nekkul maanaam ñun ngeen yàqal image yu làmb surtout parce que tey sponsor li tax muy daw gis nañ ko mooy violence la nangul ci làmb bu demee nag ba am fitu di ñëwaat nañ leen ouvert la porte maanaam rafetal affaire yi ba ñoom ñëpp ñu mën a ñëw. am na solo kon gàcce nga làmb ñu gërëm wasaare làmb bu baax a baax. Hmm. di wax na jàmm ci Sénégal ci suñu lions yi. Ah, félicitation ci demi final bi. Hmm. te ci kàttanu yàlla coupe bi di ñëw maa leen ko wax fii tey. incha allah rabi man maa finalu. Hmm. loolu sama bés la. Sadio Mané day dugal. Mm. incha allah final bi Sadio Mané day dugal. Mm. Bamba Dieng tamit day dugal. 2-0 mm. lay nekk incha allah. yéen bëri di ngeen ci ñaan xanaa di ngeen yëngal kii woo Serigne si ñu la Senghor yi affaire yi. maa ngi koy jaajëfal bu baax. ñuy kontaan si ñëpp di ko béggewaat bu baax a baax mbokk di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xeexaw jërë ngeen jëf.